seen agence immobilier diaspora suppuna bi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 kumba gi nga xamante mu ngi ci diwaanu Bakel avancé fleuve Sénégal gi tax na état bu Sénégal jël ay matukaayam yépp nag yóbbu ca dëkk ba yéenikaay bi dañu xabal ni président de la république ñaari fan laa la wax la def ci secteur boobu ba muy dem nag ànd nag ay ministères yu bari yéenikaay bi nañu moom président Bassirou Diomaye Faye ci boppam moo def point yi ci organisation secours yi nga xamante ne jël nañ ko foofu lépp juróom-ñaar téeméeri kër ak ñoom ca coono ñu teggil leen nag seen coono gi ni wet ga yéenekaay bi dañu xamal ne keneen ki doon yóbbul tamit ndimbal du kenn ku dul Bougane Gueye Dany ak coalition sàmm sa kàddu waaye moom Bougane Gueye Dany nag ci coono la mujjee jamono jii ñuy wax ak yéen mu ngi ci loxo takk der yi ndax xëccoo bi amoon naa la wax ci digganteem ak takk der yi tax na moom Bougane Gueye Dany boo moytul tey jii mu jàkkaarloog juge bi ci duwaanu Tambacounda situation bi am na ci duwaanu Bakel yéenekaay bi xamal nañu ne bu ko kenn tuutal ndaxte tuutiwul d'ailleurs xalif omarien bii di Cheikh Nomadani Tall ci week-end wii nag mujjee naa génn def déclaration askanu Sénégal ñu def solidarité national ut ay ndimbal jébbal ko askanu Bakel te képp ku koy yóbbu mu yóbbu ko nag ci grande mosquée bu Dakar wala ca jumaa bu Tiwaawan ndax askanu Bakel fi mu toll nii soxla nañu ndimbal Les Échos yéenekaay moom deesuwaat ci ziga meetingu Pastef bi nga xamante ni dafa réussir 100 pour cent yéenekaay bi ne président bu Pastef Ousmane Sonko nag gën na wan dooleem opposition bii niki samedi bii ñu génn nag ca jam ñaajo mbooloo mu takku moo ko wuy si foo sànn mu takk yéenekaay bi deesuwaat ci te ñuy xamal ne président Bassirou Diomaye Faye moom la ñu def nag muy président d'honneur nag seen coalition opposition bi waaye li am ba des moo di képp ku yaakaaroon na doole Ousmane Sonko mu ngi wàññeeku tey jii la waalo gën a aay ndaxte ndaw ñi wuy si nañu ko mag ñi wuy si nañ ko jugee ko nag fépp ci Sénégal Matam Saint-Louis Tambacounda Thiès ba Fatick Dakar Diourbel Kaolack Ziguinchor fépp la ñu ñëw wuy si nag seen opération de financement campagne bi nga xam ne bu nu sukkandikoo ci président Ousmane Sonko 500 millions de francs CFA récolté nañ ko laa la wax ci jour boobu lu toll ak un de francs CFA ñeel seen financement de campagne li nag moom Ousmane Sonko neen lu war a mën a nekk la ndaxte ci ñetti fan dong nag dajale nañ lu ëpp 500 de francs CFA kon nag bu ñu dolliwaatee li ni mel ñu am un milliard comme du ñu am benn jafe-jafe nag ci campagne électorale bi na mu ko fas yéene doxalee tamit lépp yéene kaay bi dellusiwaat na ci di ñu xamal ni majorité écrasante le président Ousmane Sonko mi wax ne moom yéenekaay bi dellusiwaat na ci ne Ousmane Sonko nee na benn scandale amul ci dossier bu ONAS comme tamit dossier bu ASER ca wet ga yéenekaay bi dañu xam ne kañ doon woowee fantôme démb teg nañ ko bëtt moo di Abdoulaye Sylla daf doon def lancement na coalition bii jëm nag ci élection législative yi waaye dellusiwaat na ci dossier trafic or yi nga xamante ni tegoon nañ ko ci ndoddam wax na tamit ci 2 millions yi ñu koy tuumaal ne daf ko versé ci benn boo xam ne moo nga ca Paris élection législative yi secteur privé bi taxawaayam lépp moom Abdoulaye ne bu dee Ousmane Sonko moom gëw jox nag majorité jubbanti ndaxte dèjà régime buy woote jub jubal jubbanti yow ci sa jëmi bopp ak say responsable yéen a war a jiite li ni mel waaye balaa ngay jubbanti day fekk na nga jubba noppi Abdoulaye Sylla yemu ca ndaxte mu ngi xam le ci biir yéenekaay bi ne ñoom ñii seeni pexe bu matoon tey jii duma nekk candidat ci élection yi lii moo taxoon nag ñu daal di accélérer yenn ci ay dossier ci sama kaw waaye teewul nag élection législative yi dinaa ci dem vox populi ne élection législative yi kay bu ñu moytuwul Bougane Gueye Dany ci bopp moo ci dul ji mu ngi ci yoon gannaaw ba mu yoo xam ne ñu ngi ci coalition sàmm sa noonu doon dem ca diwaanu Bakel yóbbu seeni ndimbal yéenekaay bi xamal nañu ne Bougane Gueye Dany nag dañ koo mujjee kar ca entrée bu Bakel tere koo dugg nag ca dëkk ba te lëg ko wund moo di président de la république moo nekkoon ci secteur boobu yéenekaay bi ne bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ne takkadeer yi def nañ ko ne nañu Bougane Gueye Dany dañoo sàkk woon ci moom ñu daal di dal tuuti bàyyi ba président de la république yegg si ñuy soog a bàyyi cortège am lii ne du ko seetaan ndax président de la ni mu amee sañ-sañu dugg amee sañ-sañ tamit dugg ca biir ba am ñu daal di jël Bougane Gueye dugal ko ci oto gendarmerie ba yóbbu ci yoon te tey ji moytuwul dinañu ko defeere mu jàkkaarloog juge bi yéenekaay bi ne fi mu nii moo xam société civile bi ba ci opposition bi ñëpp a ngi yëy yàbbi nag ci arrestation Bougane bii te coowal Bougane Gueye Dany bii tuuti mu nëbb nag ziga meeting bii Ousmane Sonko doon woote ci diwaanu Diamniadio presque show ba fa amoon lépp na coowal Bougane Gueye Dany bi fay na ko yéenekaay bi desuwaat administration bu Bakel lépp moom président Ousmane Sonko dellusiwaat na ci leeralal tamit dossier bu Adji ak mbir yi amoon ci pavillon spécial ba mu nekkoon coowal compte maxi bi lépp moom njiital Pastef dellusiwaat na ci di xamle ne amoon na ay voyage nocturne yoo xam ne lépp secret la nekkoon nag ci dossier bu Adji ba ci grève de la faim bi askan bi doon dégg saa nekk moom Ousmane Sonko ne ay pexem la lan moo taxoon mu ko doon def lépp ngi ci biir yéenekaay bi levée de fonds bi nga xamante ni moom bi xamal nañu ne ndaw yi Pastef yi defati nañ de millions de francs CFA la ñu dajale ci samedi jooju yéenekaay bi ne Ousmane Sonko defati na maninam ndaxte déclaration ba la muy xat-xat dugal na kuu Macky Sall Amadou Ba ak Bougane Gueye Dany ku ci nekk jël nga sa wàll nag ci déclaration bu Ousmane Sonko bii fekk jamono jooju société civile bi ñoom ñoo ngi ñaawlu arrestation Bougane Gueye Dany bii nga xam ne ndimbal dong la doon yóbbul nag population bu Bakel ñu jàpp ko dugal ci biir kaso bi Alioune Tine nag di xam ne ci bi 2024 li fi amoon lépp na genre yu mel nii moo ko indi woon kon nañu libéré nag Bougane Gueye Dany ca na mu gën a gaawee la tribune yéene kaay ne engagement dong nag la njiital gëm sa bopp nag am ànd ak yeneen i yoo xam ne ñoo ci biir coalition sàmm sa kàddu doon yóbbul ndimbal nag population bu Bakel waaye dafa mel ni excès de pouvoir daa mujjee am lànk la takk yi def na cortège bu Bougane Gueye Dany bii du dugg ca biir dëkk ba te président de bii di indi ndimbal ba pare ñu leen koy tere lii moo leen naqadi ñoo lay sàkku libération Bougane Gueye Dany ci na mu gën a gaawee moom njiital gëm sa bopp nag mu ngi xam la ci biir yéenekaay bi ne sama liberté de circulation laa la wax kenn du ko xañ version yi nga xamante ne ni am na ci dossier bu Bougane Gueye Dany bii lépp yéenekaay bi ñëwaat na ci ne gendarmerie nag li ñuy ñaawlu moo di waxtaan gi ñu doon waxtaan nag Bougane Gueye Dany mu lànk ne moom du leen déglu lii moo mujjee indi nag situation bi fi mu toll la ñu nga xamante ni Macky Sall doon na ko doon def tànk yooyu la nguur gu bees bi commencé jël Pape Djibril Fall feelu ko sa wet ga di xamle ne Bougane Gueye Dany nag man li ma ko jàppee fi mu toll mooy otage politique la waa coalition sàmm sa cadre ñoom tamit di soutenir Bougane Gueye Dany def seen communiqué tey dénoncé nag règlement de compte yi nga xamante ni nguur nguur gu bees gii moom lañ commencé def ci ñenn ñu nekk ci opposition bi ñoom waa sàmm sa kàddu organisé woon ne boo bëggee dégg dëgg rek réussite totale lañ ci am ci mbooloo am ko tamit ci koppar gi ñu doon dajale 500 de francs CFA la dajale ci ñaari fan déclaration yi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko fa yéenekaay bi desuwaat na ci ne bi ci gën fës mooy moom njiital Pastef dafa mel ne daf doon défendre nag dossier bu Azer bii ndaxte nee na amul benn scandale bu ci nekk acteur politique yi nag kenn ku ci nekk Ousmane Sonko dal na ci sa kaw moo yi fekk jamono jooju moom Bougane Gueye Dany nekk ci ay xat-xat ndax yéenekaay bi dellusiwaat na ci audition ne 15 heures et lañ ko tàmbali ba 18 heures leaderu gëm sa bopp nekk ci loxoy enquêteurs yi communiqué takk der yi nga xamante ni bu ñu sukkandiku ci avocat wu Bougane Gueye ne nañu ñu ngi njott na nag dafa am diffamation tax na Bougane Gueye Dany nag dana porte plainte le point actu ne scénario bii ñu def nag Bougane Gueye Dany bu nu fàttaliku tuuti rek mës naa am ci Ndakaaru Njaay gii ci njiital Pastef Ousmane Sonko ndax ñu ngi fàttaliku bi ko takk yi ne doo jaar na ci corniche bi Ousmane Sonko ci boppam nag dafa amoon détermination faaw mu jaar ci corniche bi ba takk der yi dañ ko mujjee jël dugal seen oto yóbbu ko te même bii nag moo am ci Bougane Gueye Dany moom it tamit dañ ko tere woon mu dugg Bakel mu fipp na par force dafay dugg biir Bakel lii moo tax nag takk der yi mujjee ko dugal seen oto yóbbu lan moo tax nag la woon démb ñu ànd ci Ousmane Sonko lan moo tax nag ñenn ñi d'accord ci Ousmane Sonko mii la mu defoon ca corniche ba jàpp ne dafa nekk ci ay droit am de circuler ay ñu bëgg koo xañ Bougane Gueye Dany mii en tout cas yéenekaay bi de ñoo ngi gën a may doole nag Bougane Gueye Diouf di xamle ci biir yéenekaay bi ne li ma gëm ba gëm mu di dossier bii dañ koy classé sans suite Seydi Gassama Amnesty International moom di xamle ci biir yéenekaay bi ne nañu libéré ci na mu gën a gaawee Bougane Gueye Dany moom Bougane nag li mu gëm ba gëm wax na ko ci biir yéenekaay bi ne Sénégal gii ñu nekk nii jaral na ma lu nekk ay sacrifice dong la nag ci combat bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal leneen li yéenekaay bi desuwaat tamit mu di dossier bu Azer gannaaw mu bëree coow loolu ñëpp di wax ne scandale dafa am Ousmane Sonko nag yéy na ci yàbbe ci ziga meeting mu doon amal ca jam ñaajo moom njiital Pastef di xamle ci biir yéenekaay bi ne amul benn scandale bu am ci Azer naka noonu tamit dossier bu ONAS bi moom Ousmane Sonko nee na amul scandale lii moo tax nag société civile bi ku ci mel ne Birahim Seck moom ñaawlu kàddu na nag dafa nekkul ci dossier bi ndax DG ba ba mu accepté nag renégocier yi nga xam ne moo nekkoon ci biir Azer te mu gisoon na contrat boobu la ñu waroon a commencé yóbbu mbir yi ci yoon Birahim Seck nag jàpp na Ousmane Sonko lii du cëram source amam desuwaat ci coow li nga xam ne mu ngi ci diwaanu Bakel fleuve Sénégal bi nga xamante ne avance na ba jël yénn ci ay këru askan ba fa nekk Bougane Gueye Dany ak délégation bëggoon fa yóbbu ndimbal ci entrée bu Bakel nag ñu mujjee leen a bloqué la ko wund nag yéenekaay bi xamal nañu ne président de la république ci boppam moo waroon a dugg biir Bakel lii moo taxoon takk der yi daal di bloqué Bougane Gueye Dany yéenekaay bi desuwaat ci film bii di ñu xamal ne gis nga cortège Bougane bi cité kër góor gi la ko takk der yi commencé surveiller ba ba muy génn Ndakaaru Njaay police bu jëppal ci boppam laa la wax moo doon suivre cortège bi ba muy ni muy yéggee laa la wax ci autoroute à péage bi commissariat seen wàll topp cortège cortège bii nekkee nag ci kaw autoroute à péage bi gendarmerie moo ko doon surveiller lépp nag jëm ci wàllum sécurité yéenekaay bi dañu xamal ni coow li nag mu ngi amee ci entrée bu Bakel fa lañ waxee seen délégation bii ne da ngeen di xaar waaye Bougane Gueye Dany mënul woon xaar dafa mujjee wàcc otoom ne ñoom dañuy dox dugg biir Bakel ndimbal li nu yor faaw ñu yóbbu ko coow li ne kur ba tey jii laa la wax Bougane Gueye Dany nekk ci loxo loxoy yoon leaderu gëm sa bopp mii am na ci yenn ci ay kàddoom yoo xam ne yéenekaay bi deesuwaat na ci ne wax na benn gendarme ne ko waxal say supérieur ne man Bougane Gueye Dany kenn ku ma mën a tere yegg nag ci douane Bakel yegg naam yeggul ca diwaanu Bakel yéenekaay bi xamal nañu ne moom njiital gëm sa bopp fi mu toll nii mu ngi ca loxoy yoon tey jii lañ ko fas yéenee defeere mu jàkkaarloog juge bi ca diwaanu Tambacounda grand panel na en tout cas li wérte wër mooy débordement yi moom am na ay dégâts yoo xam ne def na ko juróomi nit mujjee nañoo ñàkk seen bakkan ci avancée fleuve Sénégal bii kenn ki mu ngi dëkk ci diwaanu Bakel kenn ki ca Kidira ñett dëkk ci diwaanu dugal réew te mbir yi sax yéenekaay bi xamal nañu ne bu ñu sukkandikoo ci bu Tambacounda 55 600 personnes laa la wax ñoom la ndox mu bari mii nag daal di impacté 1500 production agricole perte ko situation bii nag war a tax fi mu toll nii réew mi ñëpp booloo nekk benn ngir yóbbul ndimbal askan ba fa nekk libération yéene kaay moom di ñu nettali mbir bu doy waar ci waa ji ñuy wax Cheikh Niang gannaaw ba mu séqee ak benn jigéen buy jaay boppam ci duwaanu Ngor jël bakkanam ba noppi daal di daw yéene kaay bi xamal nañ ne gendarmerie nationale teg na loxo nag Cheikh Niang mii ci duwaanu Saly ñaari fan lañ ci teg rek laa la wax ñu jàpp waa ji la ko jotale nag ak ndaw si di jaay boppam ba moom Cheikh Niang mujjee jël bakkanu ndaw si yéene kaay bi nettali nañu ko ne 10 000 la ko joxoon ne dina séq ak ndaw yoon waaye bi ndaw si dafa mujjee arrêté mbir yi ndax nee na ko protégé woo la mu doon jëfandiku ngir protégé wu moom Cheikh Niang dafa mujjee xotteeku lii moo tax ndaw si daan na ko arrêteel waa ji daal di bañ ñu xeex ñoom ñaar mu mujjee jël bakkanu soxna si ba noppi daal di daw dem ca diwaanu Saly ak der yi nag fi mu toll nii teg nañ ko loxo moom Cheikh ñaa jamono jii mu ngi ci guddi gu bët setagul <laughs> yàlla baax na yàlla bari na sutura ñu yendoog jàmm mbokk yi ba subaak jàmm incha allah